jeex na nga jóg jàpp nga jóg euh, kàbbar julli hmm. loolu mooy tiim su julli ga jeexee jeex na su fekkee ne julli farata nga doon julli yenn fuqaaw yi wax nañu ne soo jullee farata bugg a naafi la su la neexee mën nga ko ci teg moom amul laal bopp ak loolu kanam beeg loxo yi ñaari mbir moo ciy farata beneen bi mooy sunna loxo bi nii ak kanam gi bii nii du farata waaw loolu mooy tiim soo paree su fekkee ne bu dul suuf nga jël yaa ngi wax xeer bu mm, na su fekkee xeer la itam nga téye ko def ko nii maanaam xeer bi daal nga nga kile ko ci nii sa loxo moo xam su eboo bu ca dara tax mm-hmm. waaye daal ndem def nga ko ba laal sa loxo bi yëpp daal rek nga def nga xeer bi it yaa ngi doon wax ne bu mu door xeer bu loxo bu bu waa bu bu mu am lu jëfi bu mu am loo xam ne jëfi doomu aadama daf ci am bu bu ci doomu aadama dugal loxoom mm-hmm. maanaam bloc bu toj mm-hmm. wala taayel siy toj mm-hmm. yooyu yëpp manut manut parce que loolu loxol doomu aadama daf ci daf ci dugg soxnaay da loolu mooy euh, euh, njàpp mooy sangu mooy tiim di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu nangul nu euh, liñ fi wax ñaan ko itam lépp luñ wax yal na dëppoo ak li ko neex mhm. euh, di ñaan yàlla it ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan man cee jëriñu lépp lu ciy njuum te suñ mankite la euh, ñu ngi koy jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, jërëjëf Alaaji Ousmane yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñooy seetaan programme bi jëriñ nañ bu baax a baax a baax ci li nga xam ne loolu nga fi wax mu aju nag ci wàlli tiim wàlli njàppa ak wàlli sangu ba mhm. eh, ndég wax nga ko fi am na solo lool ñu bari dañuy kersawu mhm. eh, ngir laajte te mbiri islaam yaakaar naa ne jarut am kersa eh, comme ni ma la ko waxee woon léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne sëy naa jëkkëram ba jëkkër ja gaañu mhm. ba mu war a ténja bay sumi ténja ba sax te du mën a sangu te soxna ay fuy ma jox la fi benn sew sew soo seetloo jigéen saa yooñ ko muur muy sangu loolu yëpp aada la woon boo xam ne koy jàngal jubluwaay bu baax moom lañ ci dañ koy jàngal waaw parce que xam nga fi ne mu ngi dugg si néegu sëy mm-hmm. eh, mbiru sangu janaaba dafa fréquent dafa dafa dafa bare waaw bu njëkk xëy na par póot mm-hmm. mun na am ne sax gisagutoon póot waaw waaye léegi da ngay dugg moo tax ñu naan dañ lay jàngal sangu donte nga xam ne niñ koy defee ci aada mm-hmm. am na ci lu diine bañ waaw parce que jàngal ko ko fi ne nii ñu jàngale nañ sangu ku ko ci man rek man na jarut ñu ñëw di la futti mhm. parce que nit kenn warta gis awraam mhm. moo xam su eboo sax jigéen a koy gis lu dul darura mhm. waaye dañoo dem ba eh, ñu ngeen jéggal ma yéen jigéen waaye dañoo dem ba ñun ci suñu aada jigéen ak jigéen daal dafa mel ni dara aayu ci maanaam pour ñuy gisante seeni awra te dafa xaraam dafa xaraam of course dafa xaraam jigéen ak jigéen waruñoo gisante awra góor ak góor waruñoo gisante awra ñim dagaan rek mooy ñaar ñuy sëy wala ñàkk pexe nga xam ne lu mënta ñàkk la mm-hmm. waaye bu dul loolu wax dëgg yàlla jàngal nit ki nu ñuy sangoo euh, ci nii moo gën ñu dem di ko futti di ko ko jàngal donte jigéen la mm-hmm. dem nañ ci ba ci aada yi sax nit ku génn téeñ ji sax ñu ñu di ko ci jaxasaxaale waaw ne dañ la war a summi di la sang seetal nit ku sëya sëy ba sa jëkkër gaañu <laughs> léegoo ba nga xubba daas mm-hmm. dégg ñu war laa ñëw ne dañ lay futti di la di la di la eh, aada yi dafa yàq lu bare yoo xam ne yu biddaa yu bon su da nga war a jàll géej ak war a sangoo ndoxam géej danga war a ngegenaayoo paakaak mm-hmm. ay caaxaan yoo xam ne kenn xamut fan lañ ko jëlee seytaane moo ñu indil ay caaxaan yoo xam ne bëgg rek ndeysaan yàlla di ñu mere mm-hmm. waaw soxna Ayda yooyu yu jara bàyyi xel la mm-hmm. waaw ah, jërëjëf Alaaji Ousmane bon nag euh, Eh, yi loolu mooy waxtaan wi eh, comme niñ leen ko waxee gis nga fañ ko tàmbalee eh, nit ki daal booy dugg ci islaam am na solo nga mun a xam li nga xam ne noonu nga mun a jëfee ba sa jaamu yàlla mun a wér te Alaaji wax na ne gannaaw bu xol bi tojee jëf yi am na solo lool ñu mun a xam li nga xam ne moom la ñu jëfee ndax suñ jaamu yàlla mun a nangu comme que nag wax nañ xol bi toj na nangu na islaam dugga nañ ci jëf gi wax nañu liy laab wax nañu niñ ko jëfee eh, léegi nag xam naa li ci des mooy ñu dugg ci julli eh, waaye nag alaaji Ousmane eh, xam naa ñu yëggalu rek parce que ci yooni tukki la nekk Eh, waaye dinañ jéem seet eh, keneen ku ko war a uutu gannaawam mun ñoo jàngale bu mbiri julli ba ba moo ñëwee ñu mun koo jekkale ñu ñaanal ko rek fa moo jëm eh, la nga xam ne moom la faa defit yëpp mbiri islaam la ñam faa fekki ñoom it ñu jëriñoo ko comme ni ñun koo jëriñoo bokk yi bon nag fii lañ leen di tàggoo tey ci suñ programme yi daara ji ñu gërëm leen bu baax li ngeen toppa programme bi seen xarit Aida Diop ak alxaaj Ousmane Dia di leen tàggu fii ba beneen jamono. jërë ngeen jëf thank you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 ndi ɓagan laban piyanumi ka kabiri nayi balla kom ka jeeti ke ɗoor mukana maddi dina yololal e laamite ɓagana ɓe tokalude kayranu sonon biyeji bola wonu solaramte ɗe jonen sahaja so labro meli so tu jakombe an ala ko dimandu maje ɓe kagaleno kajom ni senu metti kom ko sonora sekoneska senu lakkale mumen norade sikila sosi teblola mbike mike korola jaat te dikanke mi kan mañi mona dal islam e sola ko ma pumi kiena ñamet kanko nafeno la duniya la di lakra yelo lal te anaw no warno kamburo ga biya buro meli wotu eko bemit bone rego mi di bangana bolla ba wujumi mon mag mon benno rapo ko no kala koku mu mañ met ko mano sa manu kammi dale mi te chaame e chambaraji usoto je ling kajam ya yende jak kanyo jadi kangeni kanyo kanyo buron tu bar mes kanem teramela mo kana koroka kola lal o la jat ni mi kulemi ko jupe kenga ninana ito jati bujumura bola wana warna kan mana pumulaya ban na jano kende jonge yu nyinga wala na ko pustu na ne jaw jabe kano kende jonge wana warna rek apullo jawada warna rek asofu je silje wana warna rek do tunu mikule mik faflay tu biya kumanteru jala jojumal placet kon kakana ket kasamata ko bunu jebe bajunta baraje eno ففي جلستنا الماضية تحدثنا عن السنن التي إذا لازمها الأبد وجد الثواب في كل حركاته وسكناته ومن جملة ذلك أننا ذكرنا سنن الاستيقاظ وماذا يقول الأبد إذا استيقظ من نومه ومن ذلك أيضا مسح وجهه وذلك وكذلك السواك ثم الوضوء سنن الوضوء كل ذلك ذكرناه والحمد لله واليوم نريد أن نواصل الحديث من حيث توقفنا وسنبدأ أيضا في سنة أو في فعل ما ينفك الأبد ما دام حيا وهو بأقله يتكرر عليه مرات عديدة ففي هذه الأمور التي تتكرر من قبل الأبد مرات عديدة لو أنه استصحبها مع السنة نال الفضل العظيم من ذلك انتعاله وخلؤه عليه أي كيف يلبسن عليه وكيف يخلعهما بحيث أنه في حال اللبس يجد ثوابا وفي حال الخلي كذلك يلبس يجد ثوابا قال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم أو إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمنى